waaye nuyuwaat nañ leen ci wasaare làmb ñoo ngi fi stade Iba Mar premier combat noonu diggante Ndongo Lo ak Petit ñoo ngi jàkkaarloo ñoo ngi jàppante mbokk yi ma àndal teg tey sama consultant Mouhamed <laughs> boobu Wassare maa ngi koy nuyu di leen wax ne tey fii du yomb grand combat bi nekk ci diggante Alioune Junior mbër yaa ngi jàppante mbër ngi koy xar Ndongo koy xar Ndongo Lo mi dafa mel ni ku saf de fàqat na ko fàqat na ko Ndongo Lo wóor wóorul Ndongo Lo ngi liggéey Ndongo Lo làmb noonu li may gis neexuma luy direeku Ah, waaw waaw Alioune Seye buñ tooñ mënuñu ñëw ba ci ci mukaay jàmbur yi fa sotti ay ndox. lamb ak lii ñoo ànd. ah non violence lañu woote. waaye lii day safal géew bi. ah tey nag faaw ñu nuyu waa Wassare Lamb ñu ngi ñu ngi arène nationale. waa di nuyu sëñ Bassirou borom taag ak mbég yi. ak sama doom day jiili. sama copain. Eh, kenn du moom ci reporté. képp kuy reporté ci lamb bàyyi nga ko xel kenn du moom. waay waay waay l'enfant chéri des Parcelles Assainies boobu noonu sama xarit la. est-ce que xam nga benn waaw est-ce xam nga ne Jax dafa bëgg a wane site yu mag yi site yu ndaw yi. non du ay caaxaan wasaare site bu mag la boo gisee nee nañ nee nañ nekk fu ne rek yàllaa ko mën mais wasaare ngi jéem. wasaare wasaare ngi fépp. mu ngi arène nationale. ndongo loo fàqat na ko. ndongo loo koy doo di ko xookas. ah xale bi saf na de. ay ay ndongo. mbaa xale la day metti non du yomb. Mhm. non xale yi dañuy ñëw bëgg a wane seen bopp bu ñëwee il faut ñu jëflante ñoom ñaar. te nongolo dafa àndaale mbooloo. kenn du nongolo. non boo gisee mbooloo bi mu ànd rek da ngay xam ne ku mën a bëre la ndax fii boo mënul ki xale yi duñ la topp xale yaa ñàkk ñu jom ñàkk ñu fulla ki mën la ñuy àndal. ndeysaan ñu ngi jàppante. combat gi dama ragal mu doon combat bu xaw a yàgg. ndeysaan bëre leen. bëre leen Petit Diouf. moo ngi koy kal Petit Diouf a ngi koy na ko mu rëpp Ndongo Lo ngi koy rokas ay ndongo Ndongo Lo rokas Petit Diouf. waaw père. eh ñu ngi lay ziar. Ah, mais Petit Diouf mbërewul de Petit Diouf mbërewul yoon moo ngi taxaw rek jàpp. mu may saf benn mbër. di ñëw rek taxaw mais du ma turam xam na. kooku kan la eh du ma wax turam. lamb ji démb ko kenn dégguñu. yee na naa la ko dee rek. bàyyi ma dee la ko. <laughs> démb ko kenn lamb lañ wax dañ ma fi sot soto kenn du la laal. yee bàyyi ma toog wasaare. kenn du cee eh, wasaare lamb. ay ku ñu laal. yee sit bu mag bi. ku ñu laal abi bi atte na abi bi atte Petit Diouf Ndongo Lo numéro 2 ñoo ngi lewtoo Petit Diouf Ndongo Lo numéro mu ngay dóor. Babacar a ngi noonu. <laughs> borom li borom li TV. Babacar daal lii mën nga koy jox. Babacar daal lii xanaa mën nga koy jox Babacar. <laughs> ci loo ne yaa ngi am jàmm yàlla sant yàgg diggante ak Petit Diouf ñoo ngi lewtoo mbokk yi Petit Diouf bëreel Petit Diouf bëreel Ndongo Lo gis ko am jom la may ndur. Ndongo Lo door na léegi. Ndongo Lo gën a jox ba euh, làmb ji. Ndongo daw na jël ko. combat bi dafa yàgg. xale yi bu ñëwee duñ bëgg daanu Ndongo Lo tegal loxo 16 laay lay la laa Ndongo Lo xar na ko ba mu ñëw mu tegal ko 16 Ndongo Lo woo mu mag ma la lay jox nekk xale teewut am jom mu xaar noo gisee bii jël da ko xëcc ba mu ñëw mu tegal ko 16. mais fàttali première lamb Modou Lo ma set. yee tegal sees gëj naa gis depuis. fàttali loolu. yee Modou Lo champion. bul ma fàttali loolu. yee da ziar naa. waaw ñooñu ñooñu ziar. yaa ngi am jàmm. maa ngi bu baax. noo waajal tey combat. waaw ma waajal combat bi entraîné ak su waa Ikri ak sama xarit sama sama waa golf yëpp ñoo jàpp waa parcelle ñëpp ñoo jàpp si bu baax. xam nga ki ngay bëreel. Sawara waaw xam naa ko nii rek nii rek xam naa ko nii rek waaw. loo waaj tey loo andi. Ah, lu muy moom bàyyi dama gën a nëbb moom. waaw gën a des yàggatul. ah non yàgg yàggatul léegi incha allah. kon bonne chance. waaw merci waay jërëjëf waay. waaw yaa ma gën a xam ca kanam maa ngi ziar bu baax. ci gis lool. maa gis nga toog lëlu xew. yee la rek gars yi ñoo ma toogal. réservé wu waale en attendant. ma gis sànq ba des adversaire ñëw di la cokkaas mais nga def dal tek. yee waa xëy na lamb ji moo laaj loolu quoi jarul yàkkamte jarul boo xam te ne jarul yàkkamte jaru ko si affaire bi si biir la est-ce waa Parcelles ñoo ngi lay xaar yee bu baax a baax a baax moo tax tey ma ñëw def serein def dal di ñaan yàlla may ma ndam incha allahu billahi waaw baax ñu bàyyi la ba ci kanam waa ci kanam lii mooy dàq incha allah abit baa ngi li làmb nango ak li làmb bañ Pape Thiam Junior Thiatou Bombaay Caatu Bomba jël benn avertissement Habib baa ngi laaj ay jugeem waaye Habib xoolal fii <laughs> Habib laaj na consulté ay jugeem ñee na ko pare naa laaj na leen Habib sifflé na Pape Thiam Caatu Bambay Pape Thiam Junior à droite Caatu Bombay à gauche Pape Thiam Junior ngi dox ci kawam combat bu nuyu na ma combat bu nooy gaaw Pape Thiam Junior Caatu Bombay ñoo ngi lewtoo ah Mouha Mouha dafa mel ni da ngaa da ngaa da ngaa perte repère ci làmb ji tey. perte ma repère xool ñaari mbër ñi dañoo a xaw a ëppante dañoo a sutante daal. ay waay bu bu bu ren boole ñoo xamante ni ñoo méngoo. bul xeeb Papa Thiam jël na ko Papa Thiam jël nañ koo jël nañ ko jël nañ ko Thiatou Bombaay jël na ko Papa. Caatu Bamba jël pa yenn noo ba ci kaw yenn noo ko ba ci kaw war na ko ndombo waxoon naa ko daanaku ko kat api jeex na jeex na jeex na jeex na Caatu Bamba daan Papa Thiam numéro 2 Caatu Bamba li muy def nii bàyyi ko bu ko laal bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko waay waay ana ndooy so waay waxoon naa la promoteur toog yu méngoo ko doole mbëre doole doole feeñ na fi ne woon naa ko moo tax ma xaw a tiit daal. waaw xoolal ma perkaal bi dafa am ba daa mel ni làmb ji da koo yenu waaye yoon c'est nag ndax ci defet la jógee làmb ji warul yomb benn yoon ci ànd waa Parcelles yëpp. Tapha Mbeur mi tey daan na la tous de tey xale parcelle bi kenn du moom jëlal. ngay dee xale baa noonu xale parcelle baa noonu tafaawa ngoog ama bu rëbës laafa bu kër baaba ama bu rëbës ak laafa bu kër baaba ana ama bu rëbës moo féete à gauche ama bu rëbës la mbokk ñoo ngi lewtoo ama bu rëbës ñoo ngi lewtoo Ama bu Rebeuss l'enfant Kër Baba l'enfant Kër Baba à gauche Ama bu Rebeuss à droite moo tax ngemb lu bay taxaay Ama bu Rebeuss door na léegi l'enfant Kër Baba jël na ko l'enfant Kër Baba eh xale yi dañoo saf Ama bu Rebeuss moytul loolu moytul ko soo jël na tànk bi faqan ko faqan na ko def na kat ah daanoo gul de daanoo gul de l'enfant bu kër Rebeuss daan na ko daan na ko Ama bu Rebeuss daanu na Ama bu Rebeuss daanu na daan na Ama bu Rebeuss. buur loo. mbokk yi Seye Ngok. bu kii Waalo. ànd ak waa Yëmbal. waa Kër Massa Buun. waa Géejawaay. ma gis Alioune Seye 2 ci ginnaawam Massa Mbour Géejawaay Alioune Seye Ngok Kayta Kara Mbaye Diop 2 Kayta Kara moo ngembo ngembo rouge noir bi Kayta Kara Mbaye Diop 2 ñoo ngi xeex Kayta Kara Mbaye Diop Kayta Kara Mbaye Diop 2 jàppante nañu Kayta Kara Mbaye Diop 2 Mbaye Diop 2 moo ñu woon ginnaaw Kayta Kara lañ jàpp lañ jàkkaar lool Mbaye Diop 2 ngi rokkos Kayta Kara moo ngi jéem a Kayta Ka moo ñëwoon ginnaaw mbokk yi Alioune Seye tuus na lu neex tey làmb Baol Production daal na nañ ko Kayta Ka moo ñëwoon ginnaaw Mbaye Diop 2 Kayta Ka looy def nii ah bàyyante waat nañu Mbaye Diop 2 Mbaye Mbaye Diop 2 ak Kayta Ka Kayta Ka mooy dox ci kaw Mbaye Diop. moo takk téere ci kiwis yi wàcc na ba tolloog moom Keita Grand Mbaye Diop 2 ñoo ngi weccante am ma delloo la ay bu jugee waa golfu jóg waa géej waa jóg parcelle door na ko baaru kaawo baaru kaawo kaawo ñoo ngi xeex ñoo ngi xeex daw na jël ko daw na jël ko Mbaye Diop dóob Keita Grand Mbaye Diop 2 Kayta Kara Mbaye Diop 2 moo ngi rokas ñoo ngi jàpp eh laay doomu daanu doomu daanu Kayta Kayta jaw na jël war nañ ko ndomba Mbaye war na ko ndomba Kayta Kayta Mbaye Diop ah génnaan na ci xale dañoo mën a béyee waaye ba dara amul foofu li ma gis. li ma gis baa du loolu Mbaye Diop de Kayta Kara laay xale yi xale yi dañoo ñemente Mbaye Diop de takk na ñaar loxo yi caxabal na ko caxabal na ko bul def loolu bul def loolu oh dellusiwaat nañu beneen làmb ju neex ñoom ñaar Mbaye Diop dellusiwaat na ko ci digg géew bi Kayta Kara ngi jàpp laay. président bi la. laay Keita def loolu Keita def loolu Ardo Ardo fena Mbaye Diop do Keita Kara Mbaye Diop do Keita de Keita seqal protestant bi Keita ka protestant bi amit ne na seq ko koy yénnee ak di ko dugalaat lépp laay wax du ma bàyyi dara <laughs> Keita ka Mbaye Diop de kawamaan kan maa soxla kan. ku sol protestant bu. Keita daa mel ko sonn Keita daa mel ko sonn oh war na ko ndomba bëreel bëreel bëreel Mbaye Diop de daan na Keita dafa teel a bàyyi Mouhamed dafa teel a bàyyi action da nga koy mu ngi yegg sa ba. e ku muy seeti foofu Nice. <laughs> combat de la soirée Louis Thior ak seng gi waaye kii turam bi seng gi du ma du ma laal yàlla bu ngelaw ngelaw buy taw ba ngelaw damay waaf bugguma seng di laal da dagg laay Louis Thior à droite seng de ku mu laal eh di nga xam ne seng laal na la yàlla nañ ci bu muy taw mu ngelaw. foo seng seng baaxul. bu yoo turam de baaxul ci liy coor. seng gi à à à gauche. liy de à droite. seng gi moo ngeem moo ngeem lu ñuul li. liy bi. morceau xonk yi di lang. ñoo ngi dem ci wetu saako yi. liy coor sokkaas na léegi. seng gi dafa mel dafa bëgg a dem. seng gi liy Louis Thior 2 cinq gi cokkaas na moom Louis Thior cinq gi def reculer ma dellu di leen fàttaliwaat wasaare ngi arène nationale ci Jax production mi teg tey 10 millions <laughs> laay kenn du Jax eh et eh, liw ji et eh, cinq gi dóor na liw coo génn da koo tuuse da koo gi moom cinq gi moom cinq gi nee naa la bu wuyoo turam baaxul bëgguma ko ci buy ngelaw yee baaxul baaxul di nuyuwaat sëñ Basirou moom taageeg mbég gi jiili sama doom nday moom passé asari ah suñ caméraman bu mag bi ah tam Adama Adama ah Adama du ay caaxaan. dama fàtte Malcolm. yee suñu caméraman bu mag bi. ma rapport bu mag bi. dem nañ fu ne. ànd nañ fu ne. dem nañ ci ànd yoon nañ ko fu ne. fu ne du ma fàttali lu ñaaw. Eh, du moom caméraman bu réew a réew. fàttali ko lu ñaaw. déedéet baa ko mu filmé. sutura daa baax. baa ko mu liggéey. waa Habib du àtte combat bi xanaa gisul li ma gis ngemb liw coobi xoteeku na daanaka kilo ci des nu ko àtte ñu defaraat comme ñu defaraat ngemb li seng gi xotti na ngemb liw coor bi moom seng gi ah seng gi daan na liw coor seng gi daan Liu Thior Liu Thior da ko doon bëgg a caxabal seng gi daan na Liu Thior. Liu Thior dafa moo bëgg jeexal combat bi lii xam na ni lu munu cee génn. caxabal bi dafa sori. waaye même bu soriwul lii rek mu xam na ni munu cee génn moo jeexal combat bi. su doon ñëw doo def. yii du ma def lii. wóorul risque la. lii lii lamb amateur la fi def lii waaye. Alioune Seye nuyu naa ngi am jàmm. bu baax. yaa ngi waaj combat bu baax. li si des bàyyeetul de. yaagatul waaw te même waaw yaagatul. Ah. waaw ñu gis la ngay xale bu jugee ci defet nga jugee ci defet nooy waajee boobu combat. boo xale ñëwaay xale lañu. Ah. waaw. nooy waajee tey combat bi. pare rek ndam rek. Ah. ndam rek. li ci des bàyyeetul la ñu lay souhaiter bonne léegi rek incha waaw. abi bi sifflé na caatu montagne bébé guy gi caatu montagne moo ngem boo ngembul xonk li takk xànc bu xonk bi ci kawam bébé guy gee ngi jat bébé guy gee ngi jat bébé guy gee ngi jat ay picc bi jëlal ma picc bi <laughs> bébé guy gi caatu montagne caatu montagne moo ngi à gauche Bébé Gouy Gui à droite Bébé Gouy Gui moo tent bopp bi combat bu neex mbokk yi huitième septième de la soirée Bébé Gouy Gui Thiatou Montagne Bébé Gouy Gui met na léegi waaye demul Bébé Gouy Gui Thiatou Montagne Thiatou Montagne Thiatou Montagne daa mel ni ku bëgg dem waaye Bébé Gouy Gui ne tekk di ko déglu mu xam noo gisee ñaari mbër yi. eh Ousseyn tey nga Caatu Montagne cokkaas na léegi Bébé Gouy Gui dugal na góos ah, boobu daa mel ni de laay ah Caatu Montagne dugal na léegi ay cadeau Noël la ñuy joxe daal ay cadeau Noël la ñuy joxe Caatu Montagne jël na tànk Bébé Gouy Gui génn nañ cadeau. <laughs> xale ay cadenas la ñu joxe caatu montagne bébé guy gi bébé fi ñëwee ba yàgg gisaguma cadenas bébé guy gi caatu montagne lan ngay woowee cadenas ah xoolal dafa mel ni dóor mu daanu nga wër ah gisaguma ko fii ba tax na daal mën naam am gis ko. est-ce la gis taw diggante Tapha Mbeur ak Aliou Seye. ndeysaan eh, noo gisee tey Tapha Mbeur tekk bi mu indi. tekk tekkaaral gi. nekk na lu ma xaw a jaaxal ci moom. loolu mosu ko indi ci dafa am mbër ñu gis ko ambiance. dafa am daa ñëw neexal làmb. mais tey diñ koo gis mu ñëw jël seen toog di xëppoo ay galaajam. di def ay beewam. dafa mel ni ay mag ko yab bi yoon. nee ko mu def tekk su ma juumul. ndax boo xoolee combat bi mu jógee. dafa ñëw ak fukki de jeunesse. ñëw neexal stade bi. maam def dal. maam booy moom booy xool maam Balla mujjee daan. moo tax tey mu ñëw jël combat bi. dafa ko dafa affaire xale ak mag. dafa ñëw tey nara tey. lii combat bi ndax nee waa passé ñëpp ñoo nekk ci ginnaawam tey. ko yabee tey. caatu montagne. kado nawel. kabos. Eh, faxal na ko. war na ko laay lay la laay. Eh, bébé guy gi. sar bi na. laay combat. daw combat ne. caatu montagne dafay ndaare mbooloo. Eh, mais bébé guy gi lim lim ko wëndeeloo ak moom léegi. jël na ko da ko oh, nañ. man bëgg naa kado nawel. buur naa kontaan. bëgg naa lii. waa Bourneau ci ñaari mbër yu bëgg lii. xale yaa ngi bëree ñu ngi cooki Assane Ndiaye kan nga yow. du nit. dégg dégg naa ni Bomar musu ci moom. mais amateur la woon bu fàtte loolu. waaw borom ba borom la. Caatu Montagne. Bébé Guy Caatu Montagne. moo ngeem moo ngeem bu xonk li nekk à gauche Bébé Gouy Gui moo ngeem moo ngeem bu beige nekk à droite. Bébé Gouy Gui moo nekk écurie Mor Fadam. Caatu Montagne. moo nekk écurie waa Fass ko ngeem. ndeysaan Père Mbaye Gueye. xam nga ni ku mu indi nga nga nga nga def jaloore. Tafa Gueye. ah Gris 2 ñëwul. Lac Rose anamu. gisuma ko mais Serigne Ndiaye barki Dembo Ndiaye la fi def jaloore anam. xale bi ma bàyyi xale gi noonu. Serigne Ndiaye de sama xarit mi doomu nday bira kenn du moom. yee yàlla na jàmmam yàgg. su ma ko gisee sama xel dafay dem ci Yékini. kenn du moom dafa mën bëre dañ ko bàyyi. su ma ko gisee sama xel dem ci ka kaw bi ma ko xool Garga Mbossé rek laa gis ci kanam. ndeysaan <laughs> sama nit la maa ngi koy nuyu. ñu ngi koy ziare di ko ñaanal mu la da dafa a taxaw. grand compte ba digg a bokk. mooy dëgg. moom ak la déggee wala moo guy gi da ci kenn jël garga. wala wala. foo bàyyi Sa Thiès. Sa wax nga dëgg. dafa Thiès garga mboosa dara dàqu ko. sama xarit bi Sa Thiès jëlal waa ji. waaw ah, jëlal ma lii jëlal ma lii <laughs> caatu montagne bébé guy gi caatu montagne moo ngeen moo guy gi bébé guy gi bébé guy gi bati na ko léegi fàq na ko bébé guy gi fàq na ko bébé guy gi fàq na ko. Oh. action bëgg na action bu yegg. eh combat bu neex. Ouzin tey fi nga ma indi nii fii fan la. Sadio Ba maa Diop. nag maa jëlee ci wasaare musique beeg célébrité religion bi ñëpp indi ma làmb. indi la fii Assane Ndiaye woote. Bawol Production. kenn du ñoom. yee doomu Bawol ji la guy gi. ba da ko bëgg a war ndombo. ndeysaan da ngaa bëgg a bi dafa sooy baaxul. bul dafa ci loolu. bébé guy gi. bébé guy gi da bëgg a bënd. waaye caatu yaraax te kaaram gi caatu yaraax te kaaram gi maa koy yëgiti gis naa fi mbot caatu guy daanu na caatu yaraax daanu na caatu yaraax daanu na caatu montagne daanu na caatu montagne daanu na gis naa fi boobu Bawal production kooku wuli la wuli la Assane di décorer boo wuli waat ànd doomu ndeyam zil boom Pikine wulee ngoog boo wuli waat tax a jëndal. yàlla la. bàyyi ko xale yi de. ah wulee ngoog. laay. wulee ngoog. ànd ak doomu ndeyam Sylvain Diagne. abi bi sifee na Boy ak Boy Diobass xam ni may ngoon bii moom d'accord naa ak Bawal d'accord naa ak Bawal boole na ñaar ñoo xamante ni mën nañoo laale par rapport ak combat bu fi jot a jàll. ndeysaan bu ma waxati loolu. Boy Demba Thiaw. dugub ñu ngi laal jàppante booy Demba Thiaw daw jëli léegi Boy Jobaas. jiili ñu ngi damante maa ngi koy ziare. ndeysaan jiili. sama copain. borom Parcelles Assainies. sama doomu ndey. l'ami de tous les jeunes filles. yaa ko wax ah Demba Thiaw ko mu ëpp Boy Diobass moom Demba Thiaw Boy Diobass Boy Diobass Demba Thiaw Boy Diobass moo ñëwoon gannaaw Demba Thiaw lañ lool bu yoof ñoo ngi jàppante journée Bawol production diggante Alioune Seye ak Tapha Mbeur bu Parcelles Assainies Demba Thiaw plaqué bi sooy na Boy Diobass a ngi jàpp mu dëgër mu xaar fi bëre la wax noonu Boy Diobass Demba Thiaw Tapha simeeku na Tapha Mbeur ngoog gi donga ni jëlal ma ngoog waay waa passé ngoog Intéo ba 26 Tapha man bi bàyyi loolu <laughs> naa dégg loolu. laay bàyyi leen loolu bokk ci. Eh, kado nawel yooyu bëgguma waa parcelle yëngu nañ. bëgguma yooyu kado nawel. ndeysaan. fin d'année lañ ne. kado nawel laa na ndeel si waat ci làmb ji booy jabaas. Demba Thiaw bu na forme bu tawar. dafa mbër ngoog. Eh, Boy Diobass ah. est-ce que gaañu waa fee. Demba Thiaw Boy Diobass takk na ko war na ko ndombo tegal na daan Demba Thiaw bu Yoff. Boy Diobass bu écrir Ndakaaru Demba Thiaw bu Yoff. néew na nit ñu jàpp ko ci lu mel nii mu ciy génn. lii kuñ ci jàppee nii. fi nga koy yegg dafa sori. torop torop sax. leen di fay defe naa waa wasaare la de. waa wasaare la. wasaare lamb. waaw bu benn yoon. Oh, ñoo ngi leen di fay di leen ñaanal aussi. aju dugg bu ñu gisantewul yàlla na yàlla ful waa wasaare yëpp ña cay liggéey koko moom ki moom wasaare ak ñi ko bokk ak ña cay liggéey ñëpp am jàmm yàlla dafa leen jàmm deful mbir yëpp ci année bu bees bi di ñëw. tamit yàlla nga am jàmm. amiin amiin amiin. noo gisee lamb tay bi. Alioune Seye Tapha Mbeur. xam nga avantage su Tapha Mbeur ak luy avantage su Alioune Seye tey. ñoom ñaar ñëpp ci defet lañ jógee. xam naa loolu. kii mbay guy gi da koo daan. prip tip moom Alioune Seye 2. Alioune Seye 2. Tapha Mbeur maam Balla da koo yóbbu top 5. donc ñoom ñaar. combat de rasaala. ku ci daan yokk ku ci daan wàcc. wasaana wala wasaan. wasaana na Tapha Mbeur est-ce que tey ni mu daan bëree est-ce que tey yoon la mu bëree noonu tey. xam nga Alioune Seye bë bëreem bi dafa xajam xamoo foo koy nat Tafa Gueye deux Tafa Mbër waa waa Grand Médine yan nañ ko loo xam ne pression boo xam ne ak ñi àndal ak accompagnant yi muy àndal loolu kenn du ko indee mbër ci làmb agressivité ak ak boo xam ne maanaam jéggi na dayoo Tafa moom ci boppam bu toppee ñee ci fugg boobu du ko arrangé mbër la mbër la bëggate boppam. nag xool ni koy arrangé moom xool ni koy yóbbu ci kanam dafa mbër jëfe loolu fii ci tey ci Iba te bu ko jëfee am ci dara tegal foofu sa loxo. kontaan naa ci wasaana wala wasaawul. Bulan bingung. Alioune Seye Tapha Mbeur Tapha Mbeur Alioune Seye jël na tànku Tapha Mbeur Alioune Seye jël na tànku Tapha Mbeur Alioune Seye daan na Tapha Mbeur Alioune Seye daan na Tapha Mbeur Alioune Seye daan na Tapha Mbeur laay Tapha Mbeur am na lu ko bett Tapha Mbeur am na lu ko bett Aliou Seye def na coppe tànk yi wëndeeloo ak moom laay lamba gi nii lamba gi nii Aliou Seye de Junior daan na